nuyoo bu ànd ak ngërëm damaa xam fu mu juddoo xamit li ko indi ci pouvoir bi léeg-léeg bu ma waxee dañ naan kii li muy wax mais xam-xam du caaxaan <laughs> Macky Sall bi ma koy indi 47 point laa def ak moom ci département bi yan yi nit ña bëri wuñu ya bëri nañu waaye 47 points ay village ak i kër moom laa ko dugal Badara Cissé génn ni ko kii ndake fii moo ma ne ko fii laa faloo kon woote bi nga woote woon di def lu baax ak suma jigéen ñee ñaawul ñee di ànd ak man fépp bàyyi seeni sox borom kër bu ma ne leen jóg leen ñu jóg bu dee guddi bu dee bëccëg ñoo tax ma ne nan dem ma wax leen li ma bëgg mu leer wax naa ko maa ngi koy répété fii man duma lenn lu dul APR alliance pour la république sama parti ci laa bokk ma am ci naqar du teema bokk ci ma am ci bànneex du teema bokk ci mais nag bu ma ci gisee loo xam ne naqar wu war a mën a faju te ñu koy nëbb ak di ko kuy kuyal danaa ni ko daje teg ci kaw euh, taabal ji ne lii mbir la moo xam ne day yàq mbir muy yàq mooy lan neexal yaafus bàyyi jàmbar te loolu daa am ci sunu parti ku bari pexe mën a yéeg mën a jaar ci rox ñu fab lii meritu keneen jox la ko na ko parti bi moyu tey parti bi day am ku muy neexal neexal rek ki mérite lu mu liggéey lu mu ñàkk ci alalam ak njabootam kenn warula la cee jiitu yow àll loolu laa gëm ndax parti ku ci sonn di ci ñàkk alalam di toppatoo nit ñi bàyyi njabootam lañ ci war a def kon boobu mérite laa la jàppee. dañoo am lu ñu waajoon biñ koy waaj it xam naa kenn ku ne yaa ngi xaar xëy na ñu tuddee la ko ndax xëy na suñ suñu yëngu-yëngu bariwul bi ñu ko waajee ba ba pare itam ñun suñ xel jàppul lu tudde ko sëñ Moustapha mii ndax raison yu bari tax na ñu def loolu euh, raison bi ci njëkk moom mooy xamante na li mu wax bu yàgg xamante na ci ay commerce lañ xamante yaakaar naa bi ma koy xam xamewu ma ko fii maa ngi ko xame woon New York booba yàgg na xam naa ne booba man xaw ma waaye man ca laa déggee Moustapha ca laa xamee ni kii mooy Moustapha ci aéroport Amérique Kennedy muy kaas ay droit am di dimbali ay nit moo ko ay da njaay ba daloo foofu laa leen xamee woon kon xamee bi yàgg na yaakaar naa bu 88 di 87 87 88 kon suñu xamee yàgg na booba loolu laa ko xamee woon ma gis ko yéen muy nit ku am walante di dimbali ay nit ci biir tubaab yi muy dugg di génn di kaas ay droit am ci biir ci biir avion bi fi ñuy jëlee nit ñi man foofa laa ko xamee yàlla dogal nag man fekk na toxu si naa Tuubaa bi ma ñëwee itam ma ñew di gëssu ba xamni ni boole ñu ñu bokk kër bokk sëriñ leneen la ca dess mu sant lo ma sant ci la yalla def ñu di ay kal kon yaakaarna fofu lu ci way wax moroomam rek warna doon loy gëm man luma koy wax rek lumay gëm lay doon lim wax deug la dafa nekkan PS ma nekk PDS mais téwul dañuy dem lente di dik lente lu luñuy defante dal doonul lu nga xani ay ay war mo wara nekk ca kon suma démé bani dama koy tuddé mbir mi rek man dama koy délo ñukkal defal na ma lu nga xam itam man yóbbu na ma ci président wax dëgg yàlla bu bu rafet yóbbu yóbbu nu rafet ñun li ñuy wax sax ay protocole yooyu kenn fekk man ak moom ak président ñun ñett ñu bokk toog di waxtaan. yaakaar naa keneen ku nga xam ne tamit maa ngi wax ak yow ci ci parti bi nga naa ma dinaa la jàppale ci président comme li ma defal doo ma ko defal ndax keneen koo ci xam itam da koy dégg rek ñu boole la ak moom man naa am numéro téléphone la la jox man naa boo ko woo du la wuyu. man naa am boo ko woy du jox rendez-vous mbaa la ko joxee. du du du wér kon moom mi nga xam ne boo xam naa ko nu bokk dëkk bokkub sëriñ te su ma ko woom wuy ma su ma amee xew mu ñëw ca su ma amee lu neex mu ñëw ca su ma amee lu naqari mu ñëw ca kon yaakaar naa lu ma demee di àndeekub jàmbur te xam ko moo tax ma bëgg a fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi liggéey bi nag li mu wax moom président mooy candidat am 2019 kon mooy suñu candidat ni président nekk suñu candidat nag ñun danañ ko liggéeyal ci dëkk bi lu nga xam ne keneen mënu ko fi su ko neexee nag président mu jël alalam di ko jox ñeneen ñuy ñëw di dal ci suñ kaw parce que maa ngi koy gis ci dëkk bi am na ñu ñuy jox di leen yónni ma dégg naa ñuy wax di wax waxi gone di ñu tàppaas te kar naa loolu mën naa ñàkk dëkk bi dañu fee dëkk lu manti nekk ji jinan fi ay nit ñoo nga xam ne ay teraanga jinan leen ko fi lu manti xew itam yaakaar naa bu ñu tàppaasee te dëggal ñooñet bu ñu wàññi ko fu ñu jëm rek la ñuy jëm kon nag loolu maa ngi leen di ñu def ci seen attention